amaat nañ ko euh, lépp rek ñu jëm ci jàppale l'islam jàppale diine mu aju ci wàllu SMS yi waaye bi nag dafa am soppite boo xam ne mu am solo bu ci am moo nekk euh, dootoo nekkati naan yaa ngi yónnee SMS chaque jour chaque jour ñi dañ lay ñaan rek nga inscrire euh, ci numéro bi ñu wax 26 26 1 mais pour nga inscrire da ngay yónnee Ali Imran par SMS bu ko defee ñu jàpp que ne inscrire ba te noppi nga pour euh, may Aly Imran semaine bu jot juróom-benn fukki dërëm wala 300 francs ci tubaab bu ko defee dinañ la yónnee bés boo yónnee loolu mu yónnee la benn doigt wala benn xadisu benn xadis nga xam ni li si mën a euh, jàngee sa diine incha allah rabbi loolu daal mooy xew-xew bés bi nga xam ne indi nañ ko fii si association Aly Imran si njiitagu sax Amir Sall pour bëgg lépp li nga xam ne projet la ci diine ci l'islam ñu mën ko taxawal ci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 defal ñu suuturas àllaaxira ñoo ngi amaat mbégte lool ci dellu siwaat ak yéen ci jotaay bi di jaajëfal bu baax soppe yi ànd ak ñun ci almisbaax yépp moo xam ñi ne ci biir réew mi la moo xam ñi nekk bitim réew di bég lool ci ni ñuy ànde ak ñun jotaay bi di ko topp def ko muy seen jotaayu wéttal def ko muy seen jotaayu jàng def ko it muy seen jotaayu nafar yal nañu borom bi subxanahu wa taala defal tawféex mu nekk ak leer ci ñun woo xam ne day dellu ci turam wi nga xam ne mooy baax mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel jotaay bi ña cay way tawat ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal borom bi defal leen saafara moom mi nga xam ne jàngoro ju wàccee rek wàccee na saafara ci wet gi yal na leen defal wér léeg-léeg mag rek daa doy tawat. rawatina nag bu mag ñëwee ba noppi tawat ñëw ànd ak moom te daa mel ni ak mage day ànd aku manadi maanaam day ànd ak ay tawat moo tax mag ñu baree baree bari ndeysaan wéruñu yal na yàlla defal leen ak wér waaye ànd ak wéradi googu yëpp ña ngay ñot ñoti di jëm ci lay tax rek ñu am ngërëmul borom bi subxanahu wa taala lu waxtu wi teel teel ñu jóg. lu ndox mi sedd sedd ñu jéem koo jëfandikoo waaye turu yàlla wuñ dégg wala istixfaar buñ dégg wala salaatu guñ dégg def ko muy seen yitte yal yàlla yokku leen a dëgëral ñoom soxna Alimatu géey ñoom maam Kiné Thiam ñoom soxna Ramatulaay yi sama meer yooyu yëpp rek ku leen lim juum ndeysaan ñoom maire Fall ci Jurbel bu ko defee ñu ndokkeel leen bu baax ndokkeel itam suñu way jur yi nga xam ne ñooy bàyyi xel jotaay bi yépp ñu cay góor aku jigéen euh, mbokk yi suñu jotaay bii di baax tey jii di benn fan ci weeru mai di bis bi nga xam ne dañuy wax ne dañ koy jagleel liggéey maanaam feet la goo xam ne dañ koy jagleel liggéeykat yi ñu war cee taxaw tuuti xoolaat baat boobu ak jëf jooju ñuy faral di wax nga xam ne mooy liggéey te boo ko indee ci waxu olof muy doon rek jëf lépp lu nit ki nekk te di ca nam na bi léeg muy tudde loolu ab liggéey am koo xam ne day jaay am koo xam ne day eh, day day ne ca bureau ba moom it am njaay la rek am koo xam ne day gor am koo xam ne day yet am na koo xam ne day ñaw am koo xam ne day tëgg ka suude ak ya nga xam ne moo ci aju am koo xam ne day bay am koo xam ne day sàmm te mooy yarug jur ak ya ci aju yooyu yëpp di ay bunt yoo xam ne bunt liggéey la moom liggéey dañuy wax ne sarafun saraful mu'min maanaam teraanga la ci ab jullit ab jullit daa bokk ci liñ koy njëkk a wax ne ko nangu la liggéey moo tax bu ñu dellusee ci daara ji natt ko ci nitu diine jamono jii bu ñu xool wàllu liggéey ak di ci jël ay exemple tey jii buñ ko waxee rek ñoom ñoo war a nekk maanaam ka jiitu ca kaw wuute woon ak tey nag boo defoon am njàngat di xool réew mi ak ñi ko dëkkee nga gis ne ku ñu tudd di tudd diine léeg moom buñ ne lu muy liggéey doo mën a wax ne lenn lay liggéey léeg ñu ne la ab sëriñ la nga xam ne doo mën a xàmmee sëriñ gi akub liggéeyam kon ndax ab sëriñ kon daawut te liggéey ñoom kat euh, ay sëriñ lañ jeex na léegi moom dañ koo war a liggéeyal daa war a liggéey daa war a liggéeylu daa war di yëngu ci dara yooyu yëpp baax na moo xam day liggéey moo xam dañ koy liggéeyal waaye li feek principe boobu mi ngi am rek euh, muy loo xamante ne nii teraanga lay koy yokk maanaam personnalité lay doon ci moom. <laughs> liggéey personnalité la ci nit ki nit day nangoo liggéey ki am métier métier ma di ko jural la muy dundee day am personnalité waaw ñu baree baree bari li tax ñu ñàkk personnalité dañoo amut ab liggéey dañoo amut ab liggéey moo tax amuñu benn benn euh, nu mu tuddati benn crédibilité ci nit ñi mhm, da ngay mujj doyadi ndax bu fekkee da ngaa bëgg di mbaxar yàpp ngir dund topp ci ginnaawu nit di leen wax lu leen neex ngir dund dangaa bëgg di jayaate ngir dund dangaa bëgg di lijjanti ngir dund moo lay yóbbu sa kanam gi dootu amati ak wegeel gu ci nit ñi di gis waaye ku la ni suttu xool la li muy njëkk def mooy dalay xeeb da ndaw lool ci ay bëtam yàlla xam na ko da ngay ndaw lool ci ay bëtam moo lay yóbbu ci nga man di yàq ku la gën foo toll ndax dangay jàpp ne wax ak joxe ay information mooy tax nga dund te coono nga ciy daj yàlla xam na ne boo ko dajoon ci ab liggéey am ci lu ëpp liñ lay may liggéey buñ ñëwee ci bis biñ ko jagleel jaadu na tey jii ñëpp génn waxtaane solo si nga xam ne moom la am waxtaane itam dayo bi nga xamante ne moom la ko lislaam jox ndax bu boobaa ñu yëg ne ko waa diine ji kenn waru leen a gën a mën a liggéey léeg nga dem ci marché bi gis koo xam ne mi ngi góor góorlu ndeysaan nangoo liggéey lool di teel a xëy di guddee wàcc waaye gis nga bu tàmbalee bokk ci daayira yi nañ ma baal wala mu tàmbalee bokk ci association islamique yi boo moytuwut loolaa nar a yàq ab liggéeyam bu dee commerce am commerçant commerce am mi fa la nar yem njaayam ma jënd ma boo moytuwut ca lay yem ndax aw waxtu am solo di waxtu liggéey dana jot mu bàyyi ko fi ne day dem ca conférence ba wala mu bàyyi fa liggéeyam bi ne day dem ca daayira ba wala mu bàyyi fa liggéeyam bi ne day dem ca siyaar ba te yooyu li muy am am solo liggéey bi da koo ëpp solo liggéey bi da koo ëpp solo ginnaaw bi farata yi jàllee moom daal booy liggéey ba julli jot daggal liggéey bi nga dem julli ji waaye bu farata ji jeexee fantasiroo fil ardi la yàlla wax yàlla nee la bu ngeen noppee ci loolu ma santaane woon dellu leen nag ca tool ya waaw dellu leen ca liggéey ba dellu leen ca liggéey ba nga xam ne kon déggin wi ñu am ci wàllu diine léeg mu xaw a des léeg ñun ki ñu jàpp ne dafa baax du doon ki nangoo liggéey te fekk na kooku bari nañu ko gën ci pénc mi ki ñu jàpp ne dafa baax mooy ki nga xam ne yoo gis nañ ko nee nañ foo ko fekk ma nga yoru kurus wala peut ma ngay boot ay loxoom ne yogg nga xamante ne jàpp na ne moom ay loxoom daa war a nooy nepp muy wax ndànk doon koo xamante ne nii ab coono yaram mu waxu ci dara ñu ne yii sa waay nitu yàlla dëgg la dafa sell moom. Hmm. xam naa loolu baax na waaye bu ci boole woon nangoo liggéey dana gën a yokk ci moom njariñ loo xam ne dana ko am ndax lu ko mooy loxo bi féete kaw di ko teral di ko dundal yor ko sàmm ko ba mu mën a jaamu yàlla kookaa koy ëpp aw yiw fuuf moo tax doomu aadama bi itam ñu war koo yee ci loolu mu xam dëgg-dëgg fan lay taxawal boppam ngir nangoo liggéey nañu fonk euh, ab liggéey te nangu cee góorlu wax nañ ne taalibe ba dafa tàggu sëriñam ne ko damaa bëgg a xëy daal tukki ci misaal mu ne ko damaa bëgg a dem Mali wuti foofa liggéey ndax liggéey bi ma doon liggéey fii daa yàqu léegi ma bëgg dem Mali dem ñawi walla mu ne ko ma bëgg a dem Italie ndax mu xaw a tane sëriñ bi ñaanal ko biñ jullee suba ba noppi mu dem ca gaar ba toog di xaar saxaar gi ñëw ci suufu garab gi mu toog mu siggi rek xool gis am picc moo xam ne amul benn donq maanaam feebar bi mu am yaram wi amul benn donq bu ci nekk mënta naaw picc ma ne yogg mu jaaxle di ko xool yërëm ko lool ba ay bëtam taa mu naan man de picc mii xaw fu muy jëlee lum lekk nes tuuti rek am menn picc mu ne cëpp am lum sex lu mu ŋànk ca beg ba ca gimiñ ga ñëw picc mi nga mu tàbbalal ko ko naawaat dellu ñaari minutes après picc ma ñëwaat mu nga mu tàbbalal ko dellu mu ne waa man yàlla mi nga xam ne picc mi mënta naaw amut fu mu jëm mi ngi ko tàggatalal am picc muy indi di ko jox muy lekk man su ma toogoon sama kërit yàlla dana ma jox lu ma lekk kon lu fi jar may jóge fii di dem ba Mali wala lu fi jar may xëy di rey sama bopp ci liggéey yàllaa ma bind dana ma dundal naa dem toog daal di ñibbisi biñ jullisee tisbaar mu daje ak sëriñam bi ko ñaanaloon ci fajar ca jàkk ja sëriñ bi ne ko waaye yow dangaa mujjut dema mu nettali ko xissa bi mu gis ca picc ma ne ko loolaa tax ma far ñëw toog sëriñ bi ne ko léegi nag dama lay laaj yow ban nga ci bëgg a doon picc mi toog ne yuggu ñu koy dundal nga bëgg a doon walla picc góor góorlu di wuti di ñëw di ko dundal si moom nga bëgg doon mu ne ko man kay picc mi amee donc mën a naaw moom laa bëgg a doon mu ne ko kon nag jógal te jël sa kàttan gi nga am def koy donq dem wuti ci loo dundale ñi nga xam ne amuñu kàttan gi nga am te toog ci kër gi hmm. allahu akbar moo tax eh, ndaw ku ko am te bëgg mu jariñ la danga koy yee ci nangoo liggéey waaye danga koy yee ci bañ koo xeebloo métier loolu moo mas a am loolu moo mas a am nitu diine yu njëkkee fi jaaroon ñoom ñëpp dañoo amoon ci luñ nekk moo taxoon ñu mënal seen bopp ba jamono yebu leen bu ñu nettali seeni istoire doo ci dégg mukk fu leen jamono duute baaraam boo ñëwee ba tey it am ci ay nit ñoo xam ne mën nga leen a citer ñu nekk ay nit ñoo xam ne mënoon nañoo toog ni ñëpp waaye taxul ñu toog dañoo laxasaayu ngir fas yéenee bokk ci liggéeykat yi bokk ci ñi nga xam ne dañuy sonn ngir garder seen personnalité waaye ngir mën a jaamu yàlla ci seen alal jooju te bu dee ñu baax ñëpp dañoo toog góorgóorlu wuñ li àdduna di joxe du dugg ci loxol ñu baax ñi kon ci loxol ñi baaxul lay dugg te bu boobaa duñ ca mën a def lu baax te alal moom lu baax la ci kaw bu nekkee ci loxol ku baax buñ ci mënoon a tudd ay tur mën nañ ci cité ay doomi daara yu bari yoo xam ne ay jàmbaar lañ ci wàllu liggéey di ci góor góorgóorlu noonu itam ngay bàyyee xel kon ñu baree bari ñoo xam ne ñu nga tëdd tegale seen i tànk te moo ne dara duxut seen digganteek liggéey te doon ay ndaw toog rek toog rek nga xam ne dangay mujj yàgg di topp ci ñi doon liggéey yi léeg-léeg ñu jàppale ne yaay seenub sëriñ wala ñu jàppale ne seenub xarit la waaye day mujj yàgg sax ñu mere la buñ gisee sa téléphone sab appel numéro bi di di sone bala ñoo wuyu dañuy ciiputu ba noppi ndax xam nañ ne benn sàkku ndimbal ngay def wala ngay yëgle ay yëf wala ngay fexe ba dund moo tax nit ñi ñu baree bari yeewu nañ lool yàllante kon nag ñu bare xamee ko noonu kon danañ liggéey ndax ñu gën a garder seen personalité danañ liggéey ndax ñu gën a ñu gën a garder seen personalité léeg-léeg aw nit topp aw nit ci réew mi di leen sonal di leen laaj di leen laaj bañ jógee fi bitim réew ñu daggaati billet toppi leen ba bitim réew ndax di leen laajeeti te laaj boobu dafa metti ñi ñu doon ñoom dañoo toogoon nit ñi di leen fekk si di leen jox di sàkku ci ñoom ñaan yow nag bi nga ci tollee te mën a góorgóorlu am kàttanug liggéey waa ji dàqu la ko ëpp la ko nga ko li nga koy dikk muy aljan na yow amoo benn loo ŋàbb ci sa loxo lu wóor xëy na nga teg ko ci barke yi nit ñu baax waaye waaye nangu la liggéey dana gaar dana tax sa personalité bi gën a ñoŋ dana tax ñu gën laa respecté te du tee nga doon ki nga doon waaye dañu mu jàgg jàpp ne kilifa daal moom maanaam ab sëriñ wala nitu diine ki wërta doon koo xam ne nit la ku am métier waaw nit la ku am métier te fekk am métier ga da cee baax lool. mbokk yi buñ ñëwee ci bis yi nga xam ne moom lañ jagleel liggéey lu mel ne bisu tey bi ñu war a xool nag ni ñu nangoo liggéey ci réew mi waaye niñ mën a yàqe xeetu yàq yi nga xam ne ñu ngi koy def ci liggéey mën nañoo yàq de yàq yàq yàq yàq bu mu jéggi dayoo yàlla xam na ko fi mu nekk nii buñ duggee ci koor gi da gis koo xam ne lim dajale woon lépp korite rek lay xaar bu korite ñëwee ni ko fuuf mu jeex takk mu tàmbaliwaat à zéro noonu lay ñot ñotiwaat dajale la muy dajale bu ki ñëwee ni ko fuuf mu tàmbaliwaat à zéro am na ñu baree bari bañ ngéntee lañ daanu am na gone yu tàmbali woon a liggéey bay góorgóorlu keroog ba ñu waree ngénte seen yaay ne leen ngénteel taaw la mënoo ñàkk jëndu nag mënoo ñàkk def nangam mënoo ñàkk def nangam boo moytu def na pere ca banque ba lam jotoon a denc génnee na ko xew ci xew wu rëy a rëy mu jàll nag mu daanu. ñu naan ko soxnaam si da koo jigut soxna si daa am gaaf ak lu ne ñu wax ko ko te fekk soxna si gaafut jigadiwu ko waaye moom ci boppam moom moo organisé wu dundam loolaa ñëw yàqal ko alalam yi mu amoon yépp ak dundam yàqu moo tax mën a liggéey li muy am am solo mën a góorgóorlu ba moytandiku ak yàq moo ko ëpp solo liggéey mbokk yi lu am solo la personnalité la ci ab julit arme la boo xam ne day xeex ak ñàkk teraanga la ci ku néew doole moom liggéey ndimbal la ci aw askan ab peuple bu ñu nangoo liggéey rek léegi tey ñu am solution léegi tey ñu am solution nit ki nga xamante ne itam nit ku tedd la mën nay natt boppam ci taxawaay boobu nga xamante ne moom lay am ci liggéey ak yi nga xam ne moo ci aju moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon ñaari xéewal yi suñ borom defal na ko nit muy ak wér ak amuk féex mhm. doomu aadama bu wéree na góor góorlu ca liggéey lu man ci wéram googu bu amee féex na góor góorlu ci féexam googu def ci lu man ndax wér goo gis wéradee ciy topp féex goo gis itam xata ciy topp xam ngeen ni gënoon ngeen fee am jot gënoon ngeen fee am jot de waaw waaye nag dangeen ngeen di gën di ñàkk jot rek moo tax jamono jii nga gën a ñàkk jot ak as néew loo ci desal ci jot muy temps fexeel ba bañ koo tasaare temps kenn du ko yàq temps kenn du ko yàq li ñuy yàq ci temps bari na lool waaw li ñuy yàq ci temps bari na lool ndaw ñoo xam ne foo leen fekk ñu ngi ci ay garam ndaw ñoo xam ne foo leen fekk ña nga yor ay téléphone li nga sëgg ci sa téléphone bi concentré wu ci ci groupe whatsapp rek boo moytuwul jëlal na la deux heures de temps ci bis bi yoo xamante ne mënoon nga cee liggéey mënoon nga cee jàngalu la jariñ mënoon nga cee liggéey mënoon nga cee jàngalu la jariñ moo tax temps liñ ciy yàq dafa bari te fi mu ne am un million yàqate ko ba mu jeex tàkk moo gën fuuf moo gën a moye maanaam ak perte fuuf ci nit ki yàq dix minutes am ci ngelaw li ndax un million bi mën naa góorgóorlu ba amaat ko waaye dix minutes yi génn ci sa dund gi moom du ñëwati ba mukk waaw du ñëwati ba mukk moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ci wàllu liggéey daan ñaan borom bi na ko yàlla ñoo ngi lay ñaan nga musal ñu ci ci ak lot ñoo ngi lay ñaan nga musal ñu ci ñàkk kàttan ñàkk kàttan li muy tekki mooy yàlla yàlla nga may kàttan bañ mën a liggéey waaye ñoo ngi lay ñaan nga musal ñu ci ak tàyyel loolu li muy tekki mooy tàyyel ba toog tegale say tànk nga xam ne doo liggéey baaxut waaw eh, ab jullit wërta tàyyel ab jullit wërta tàyyel moo tax yeneen ti bi ne al muminul xawiyu xayrun wa ahabu ila min al mumini daif jullit bu am kàttan dëgër nangoo liggéey di ab acteur ci penc mi nee na moo gënal yàlla foofu jullit bu fooñooñ waaw waxut nag euh, maanaam néew doole bind nga xam daa amul doole waaye nag jullit bu yokk ko ki rek nga xamante ne moom jàpp na ne moom daal dana yuggu rek baaxut donte nag yépp baax wa fi kullin xayr yépp baax moo tax daan na wax allahumma inni audu bika min al ajzi wal kasali mhm. yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma nga musal ma ci ak yambare nga musal ma ci ak tayel waaw nga musal ma ci ak tayel ñaar yooyu yëpp yu doy waar la te itam yu jara moytandiku la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na ci muslu loo boroomam subhaanahu wa taala kemtalaayal kàttanam moo tax suñ borom ne man wàccoo naa ak yéen wàccoo naa ak yéen ndax dama leen a indi ci kaw suuf si ngir ngeen di dundal suuf si loolu mooy ngeen di nangoo liggéey aay yu bari day joxoñ loolu mu ne ma leen tàggatal suuf si ba ngeen man cee liggéey mooy ngeen man cee bay ngeen man cee dox doxali seeni métier wutilu leen di amal njariñ huwa alladi jaala lakum al arda zalula famsu fi manakibiha wa kulu min risqi waaw yàlla nee na maa leen tàllal suuf si defal leen ko suuf si ma taggatal leen ko jàppandilal leen ko dox leen ci suuf si ndànk waaw dox leen ndànk wa risqi waaw kon wuti wërsëg mooy tax ngeen mën koo lekk ci àjjuma bu ñu noddee suñ borom ni ñëw leen julli si buñ sëlmalee mu ne fa isaa xudiyati salaatu fantasiru fil ardi wabtaqu min fadlillah <laughs> bu julli gi jeexee yàlla nee na tasaaroo leen ci suuf si talabul risq dem leen wuti seen wërsëg dem leen liggéeyi dem liggéey dafa nekk jumtukaay ngir nit ki mën a fegu nit ki mën a fegu gis nga jigéen ji nga xam ne fi mu ne sax am na liggéey mënal na boppam ay yëf mën na koo dimbali ba du foye boppam góor gi nga xam ne mënal na boppam mën na koo dimbali ba duñ ko xeeb moo tax ñaar ñëpp la war te day taxin nga mën a doylu li ci loxol nit ñi te ku doyloo li ci loxoy nit ñi daal di tàmbalee man a jubóog borom bi subhaanahu wa taala moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññee ci ba tàyyi soññee ci liggéey ba tàyyi encouragé ci sëñ Galas Maane yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na attaajiru asudduuxu al amiinu ma annabiyiina wa siddiqiina wa shuhada nee na commerçant bi nga xam ne dafa dëggal dafa dëggal dafa dëggu commerçant bi nga xam ne dafa wóor nee na ëllëg yowmal xiyaam moo yonent yi ak ñu dëggal ñi ak ñu faatu ci lislaam ñooy bokk fu ñuy dekkee allahu akbar nee na commerçant bi nga xam ne dafa dëggal kon seetal loolu xam nga ne loolu li ci nekk ci jaamu yàlla kenn xamul nu mu toll waxut kii wérd de waaye ki ubbi bitigam di jaay wala mu dem di indi ay conteneur am wala mu ne ci business ba nekk wala muy gagné marché légalement di ko doxal ba mu jeex takk tey matale la mu wax di sàmmonteeg délai ya di ca góorlu ba du yokk ay siifur di ca góor góorgóorlu ba du eh, def ca genn njublang nee na ëllëg yowmal xiyaam bu yonent yi dekkee mu dekki ànd ak ñoom waaw taxaw ci seen wet bu siddiq yi dekkee mooy ñu dëggal ñi gën a dëggal maryaama ñoom ñoom sidna Bakr ñoom ñooñu mu dekkee ànd ak ñoom ña ñu faat ci lislaam buñ dekkee tànt bañ leen tegal ñoom Hamza ñoom Mus'ab ibnu mu dekki ànd ak ñoom toog ak ñoom kon dëggal ga am na ca solo waaye joxoñ ba ca am rek mooy nangu ga liggéey yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee jullit boo xam ne day bay ab tool day bay ab tool ñoom Baye Ibra Fall tool bi am picc lekk ca gàncax ga lekk ca gàncax ga nee na ñu bindal la ca <laughs> mu nekk mu nekk yoolu sarax mu nekk yoolu sarax allahu akbar te ab jullit li gën ci li muy lekk mooy li muy liggéey ci loxoom waaw mooy li muy liggéey ci loxoom loolu ku ko dégg rek war a gën a góorgóorlu ci loolu te xam ne am na solo moo tax suñ borom ne wa axaruuna yadribuuna fil ardi yabtaquuna min fadlillah ndeysaan ñi nga xam ne dañuy dox ci kaw suuf si di tukki léeg-léeg réew yow fajar waxtu wii solo fas yéenee dem liggéeyi yàlla xam na ne denc nañ loo xam ne mën nañ cee dund ba dee yàlla xam nañ ne am na njaboot goo xam ne mën nañ leen a yor li def seenu dund waaye ànd ak loolu yëpp ñu yëg ne ñëwuñu ci àdduna ngir seetaan dañuy dem liggéeyi ndax lan def ko muy ak jaamu yàlla ndax lan def ko ngir mën a fegu ba mucc ci laaj nit ñi wala ñuy e, sàkku ndimbal wala yu demee noonu liggéey lu am solo la liggéey lu am solo la jëf ju baax liggéey bu baax bu dagan lu am solo la wa huwa xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayaamin wa kaana arshuhu ala al maa liyabluwakum ayukum axsanu amala amala jooju bul ci génnee mukk ab liggéey bul ko ci génnee yàlla nee na ëllëg yow damay xool ci yéen kan moo ci gën a rafet ay jëf yow loo doon liggéeye ndax danga doon liggéey wala dangaa toogoon inna jaal naa maa ardi diina siinatul siinatal lahaa li waxum ay nabluwahum ayyuhum ahsanu amala moo lay won ne day dellu foofa ci lu gën a yaatu danañ ko gën a yaatal insha allah yal nañu yàlla may ñu gën a xàmmee fi ñu teg suñu tànk doon ñoo xamante ne dañuy nangoo liggéey waaye di ko liggéey te di ko wut ci anam gi nga xam ne moo neex borom bi subhaanahu wa taala yàlla mën na ko yal ñu ko boole jàppandilal ñoo ngi ndokkeel bu baax liggéeykat yépp mboolem ñi nga xam ne ay soppee almisbaax lañ te bu ñu déglu baax ne ci kaar yi di ànd ak ñun di liggéey ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu di waaj a xëy ñi nga xam ne sax dañuy xëy ba seeni bureau heure pause ñu ñuy déglu ci internet bi ñi nga xam ne bëgg a liggéey ak fegu moo leen tax a génnee seenum réew dem ba ca bitim réew def nañ jihaad ju rëy yàlla nañu dajeeg seen wërsëg te wërsëg ba bañ yàq seen dignité teñ dese seen ngor ba man koo jariñoo man caa jaamu yàlla mu jural leen ak texe ëllëg yàlla mën na ko yàlla nañu ko boole defal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 Soutenons la Dara d'Oustaz Alun Sall en envoyant Ali Imran au 26 Imran au Recevez chaque vendredi un hadith, un conseil ou bientôt des leçons de fiqh pour le coût de 300 francs. Soutenir la Dara parce que chaque geste compte.